sàngaraak ni muy jëlee nit fa gën a kawe di ko wàccee fi gën a suufe dana ko jëlee ci wala qad karram naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa rasaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasiri mimman xalaqnaa tafdila yóbbu ko ci summa radadnaahu asfala saafilina jëlee ko ci fitratallahi lati fatara annasa alayha laa tabdila li xalqillah yóbbu ko ci in humu illa kal an'ami bal hum adallu wàccee gi nga wàccee sa boppa tax te li la wàccee muy sàngara yàlla bon lu ko ñaawlu ko ba di ko boole ak xiram naan katab sàngara ak jaamu ko xërëm la yàllay lëkkale yàlla wax na ko ci alquran yonent bi ñëw firil ñu ko ci hadis ndax jaamu katab xërëm bi xërëm ba mooy xërëmam naan katab sàngara bi butéel bi mooy xërëmam moo tax mu ne faj sani bu rijj sa minal awsaani waj sani bu qawla zuuri hunafaa lillahi gayra mushrikina bi kon rijj sa minal awsaan ak xaw xawlu suur gi nga xam ne li la koy desloo mooy màndi ñoom la yàlla boole lëkkale yonentu bi ñëw gën koo firi ne mudduminul xamri ka di wasanin mu nekki ki taqoon naan sàngara moo ki jaabu xiram ñoom ñaar ñoo niroo ki nga xam ne suba mu màndi ngoon mu màndi waxtu wu ne ma ngay naan moo koo xam ne bu xëyee ñëw wër xiram gi balaa tëdd wër ko ñoo yem képp moo tax mu indi kaafu tasbih ci ka abidi wasanin imaamu ahmad andina ko te musnad mu bokk ci hadisi abi hurayra ya imaamu nasaayi indi na ko ak ibnu maja naka noonu tamit yonentu bi sallallahu alayhi wa wane ne ne sàngara ak njaalo ak sàcc ñoo niroo ñett lañ yoo xam ne jamono ji nga koy def lama la dénkoon muy marchandise bi gën a cher muy ak gëm yàlla rékki naa ko nangu ko ba pare ba mel ni mbubb bu ñu subbi boo paree nag mën naa solowaat mën naa ñàkk solowaat moo tax mu ne kuy njaaloo kat jamono jamuy njaaloo tëdd ak jigéen gum takku wala góor gu la takku tëdd ak yow nga yëg nga ñàkk yëg jamono ja koy def sa gëm yàlla ga summeeku na ba mel ni yére boo soloon summi ko wékk ko ci porte-montre bi mu ne tamit naan kat sàngara bi jamono jamuy naan gëm yàllaam nga summeeku na ba mel ni mbubb moo summi mbaa mbaxana teg ko fële mu ne tamit sàcc bi sàcckat bi jamono ja muy sóobu ci sàcc gëm yàllaam nga summeeku na fële taxaw di ko xaar ba mel ni jaan gi summeeku ci mbubbam nii la ko yonent bi waxee ne laa yasni zani xiina yasni wa huwa muminun manta ne wala yashrabu alxamra xiina yashrabuha wa huwa muminun wala yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa muminun xadis la boo xam ne alquran rek ko gën a wér ndax buxaari yu ak muslim ñoo ko indi abu daawud indi na ko tirmisi yu nasaa kon juróom benn kutubu xadis yi yëpp boo demee fekk ko ca ba mooy ibnu maaja rek moo indiwul xadis bi kon lu wér a wér a wér la di ci tegu tamit ibnu omar mi doomi omar ibnu xataab moo ne yonentoo wax ne man shariba al lam tuqbal lahu salaatu arbaina laylatan mu ne képp ku naan sàngara ñeen fukki guddi loo julli yàlla du ko nangu ndax feeg ñeen fukki guddi loola nga naan muy dangatu sàngara ja day nekk ci sa deret di daw ci moom gannaaw nag bu ñeen fukki guddi ya jeexee lay dangar day joor a jeex feeg dangar jàng ca nag loo jaamu yàlla yàlla du ko nangu mu tudd julli waaye dugal na koor dugal na aj màkka dugal na saraxe dugal na jàng alquran yonent bi nag nag yàlla ku baax la fa in taaba taaba laahu alayhi boo tuubee rek yàlla nangu tuub ci yow wa in aada kaana xaqan ala an yasqiyahu min naharil xabaali mu ne nag su fekkee da ngaa delluwaat naan ba pare tuub na demaat naanaat yàlla dara waru ko mais dana la nandal ci naharul xabaal genn dex la saxaaba yi ko ko mu ne waa safara yi buñ leen lakkee dëtt jay génn ca ñoom lañuy ñuy nandal la ko bu yowmal qiyaamee boo dugal la safara moo tax ba ko sahaaba yi ne ko wama naharul xabaali ya rasulallah qaala mu ne saddidu ahli naar mooy dëttu wànjar jay génn ca waa safara buñ leen lakkee yow mi naan sàngara tuub ba pare dellu delluwaat ca yonent bi ne loola moo lay xaar te lii du waxu sëriñëb kenn mais waxi sëriñi sëriñi la muy sayyiduna muhammad mi yàlla tagg ne ko maa yantiqu anil hawa hadis bi imam ahmad moo ko solo ci isnaad boo xam ne bu rafet rafet la imaamu tabaraani tamit andi na ko kon maanaam naan sàngara maanaam may gim lay njëkk a xeeñ mooy rekki sa gëm yàlla gi may gim lay njëkk a xeeñ mooy nirale laa xiram may gim lay njëkk a xeeñ mooy boo ko defee tuub ba pare delluwaat ca danga dugg safara boo ëllëgee ñi lay nandal dëttuwaa safara ya nga di ko naan te boo ko naanee sa butit yi ñoreeku nga naanaat noonu noonu nga dugg ci fu ma laa yemutu fiyaa wala yaxyaa kooku mooy première mbugal mi ci naankat sàngara bi bu ñaareel ba nag mooy képp kuy naan waxoon naa la ko yàlla du nangu ay julleem diirab ñeen fukki fan su fekkee dafa dee fekk na booba ma nga ci diirab ñeen fukki fan yooya dafa dee di méddam jaahiliya moo ku dee ci lu dul islaam ñooyam xatta yonentu bee ko wax moom la wax ne moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne sàngara ci boppam mooy ñaawteef yépp mbon yépp bu ñu leen dajalee sàngara mooy seen seef ku ko naan sa julli du ko nangu ñeen fukki fan boo ca deexee diiram ñeen fukki fan bi yaag koo xam ne amul diine dee yéen a xatte moo tax mu ne alxamru ummul xabaisi fa man sharibaha lam tuqbal salaatuhu arbaina yawman fa in maata wa hiya fi batnihi aa aa loolu la wax mu ne kon su boobaa maata miitata jahiliyatin hadis la bopp boo ko bëggee seeti abu daawuda indi na ko ca mu boo demee ca musnad fekk ko ca albani nee na hadis bu wér la boo demee ca jaamiya da ko ca fekk ca safha trois mille trois cent quarante quatre ko ci fekk kon yonent bi wax mu ne mbooleem ñaaw téef seen seef mooy sàngara ndax li muy tekki mooy boo capable ci naan sàngara amatul benn mbon boo capable ci mën koo def man ngaa sàcc man ngaa fen man ngaa njaalo man ngaa tëdd ak yaay man ngaa tëdd ak doom foofu la borom xam-xam yi indi xisaab benn buur dafa forcé woon benn xalil bu góor ne ko ñetti bàkkaar laa lay proposé foog nga def ko li ko may maraya da nga tëdd ak soxna si te takkoo ko ni ngeen di sëyee ma di ko xool ndaw ko bon bu ñaareel bi danga naan sàngara boo ko mënut danga nga rey xale bi mu xool ñett ya ne naan sàngara moo ci gën a xoyof ndax ku ko def juróom ñett fukk yar lañ la war a caw danaa ci yegsi si ku rey bakkan dañ laa war a rey te mën nañ maa caw juróom ñetti fukki yar may dund bu ñaareel bi tamit ku njaaloo boo sange téeméer téeméeri kon xëppee na ko ñaar fukk soo sangeewoo lañ laa war a rey kon daal bi ma xoolee ñett yi ma proposé sàngara moo ci gën a xoyof moom laay naan ba ko bu ko defee nag ba mu ko naanee mandi tëdd soxna sa bàyyee ko ci rey xale ba mu dëggal li yontu bi ne alxamru umul xabaayis bu reyoon xale ba foofa rek lay xem bu fekkoon ne tabaarakallaahu dafa njaalu foofa rek lay xem bu reyoon xale ba foofu rek lay xem waaye ba mu defee ba gën a xées ba gën a xées yóbbu ko ca yéen gën a xées mooy ba mu naanee rek mandi na njaaloo na rey na bakkan ñetti bàkkaar yépp taxaw ci kanamam waaye fekkoon ne benn ba la defoon benn ba rek lay def waaye ba mu defee ba gën a bon bu gën a bon ba defloon na ko timit yéen gën a bon kon kenn du yonantu bi ci mën a jàngale lum la wax rek maanaam boo ko xoolee gis ko te bam ne sàngara mooy nday ñaawteef yi nag bul fi nekk na sàngara la wax mais dorog bokkut déedéet lépp luy màndal rek doomu adama loola sàngara la moo xam dañ la koo pikiir nga mandi moo xam danga koo fóon nga màndi moo xam danga koo tux nga màndi moo xam danga koo dugal say bakkan xeeñtu ko nga màndi moo xam da nga koo naan nga màndi dugal na yëpp benn génnut ca waaye ñetteel ba ca mbugal ya naan katab sàngara bu dee te tuubut du dem aljana yonentu bee ko wax sallallahu alayhi wa sallama moo wax ne salaasatun qad harrama allahu alayhimul jannata mudminul xamri wal aaqu wa duyuusu allati yuqiru fi ahlihi al xabasa imaam ahmad moo ko andi nasaa yeeg bizaar xaakim ci isnaad boo xam ne bu wér a wér la yonentu bi nee na ñett duñ dem aljana ñett ki ci njëkk mooy ku takkoon naan sàngara ba dee tuubut ku ñaareel ka mooy kuy dëngee waajuram bon dëngee sa yaay dëngee sa papa tegoo leen fen dee moltre dem safara bu ñetteel bi nag moo gën a bari suñ penc mi mooy góor ak yambar koo xam ne ma nga xëy yore ku gudd yoreb kaamil di soob waaye ah, jigéen doomam yaa ngi ko romb sol coraay gu bon munu caa wax dara jabar jaa nga emaayu boole ko meesu ñi mu koo wax dara jabar ja du muuru bu génnee ñi mu koo wax dara doomam ya ay xale yu góor a nga ñëw di leen seet buñ ko rombee nuyu xale ko dix mille mbaa muy cinq mille mu ñaanal leen ne dem leen wala doomam fanaan àll yëg na ne di ko di ko mi ngi portable buy jar huit cent mille un million te xam na na liggéeyu dara lu taxawaalu bu saa ko ceeb bi jeexee mu gënal ko ko bu courant bi jeexee mu fay ko loola lépp mu koy ñaanal yàlla te xam na ne ci jubadi dong la nekk kooku mooy rajulu duyuuf kooku yonent bi nee na moo dee moo ko teree dem safara te ñu mel nii ñoo bëri ci suñ penc mi mooy borom kër gu amul kaddu ci këram jabaram yaag doomam yaag lu leen neex def mais ñemewut ta wax dara loolu nag ma ngay gën a bëri ci góor ñu sëy ñi bu la yàlla nattoo ngay góor ñi war laa sëy sil nga dem sëy ji ah mun mbaa mekk rekk moom kay mekk mbaa mbaa mott rek mënoo ca dara rek ci la naqari mbaa nga génn kër gi dara nga ca mënu yàlla ku ñor la dafa ne bu ngeen gisee ma jël kilif kilifteef gi teg ko ci seen loxo yéen góor ñi ngeen mën a yilif jigéen ñi wa bi maa anfaqu moo ko waral li ngeen di dundale gàddu ferema tabax kër dëkkale di joxe dépense bu feebaree nga faj bu raflee nga jënd yëre bu amee problème nga taxaw ca tax ngeen mën a xilif soxna yi man leen a yem loo fa ngeen a yow nag boo yembaree ñàkk fayda ba nga xam ne wa bi maa an faqu amatul waaye bi maa an faq na moo fa ne jigéen ñi ci boppam ñooy dundale dootoo xamati kàddu bu la soxna si kay bu xasee man boppam lu mu lay defeeti soxla bu ma xam man koo faj du la ko wax lu mu lay defeeti dara mënatoo xamati kàddu ci moom manta ne kon nag jar góor ak yambar baaxul day tas pénc day yàq bokk li muy mën a yàq ci pénc mi dafa hëpp góor amul lu dul kàddoom ci këram moo fees katab gàtt ñooyam fees katab gàtt bi lu gàtt bi rëy rëy baat ba rek la soxla boroom kër gu xam fayda li kër gi rëy rëy baat ba rek la soxla waaye boroom kër gu xamatul baat lu yàqu ci pénc mi moo ko yàq su ko defee moom la yontu bi tuddee rajulu duyóor kooku moom mooy koo xam ne dañuy saxal lu bon ci njabootam te munu ca dara wóor na ko lu bon li waa këram di def waaye munu caa dindi dara ma nga ne mekk rek yore kurusam di un yépp kurus ak rek ak kaamil ak rek te loolu baaxut ñeenteel bi ca mbugal ya naan katab sàngara ma ngay naan ñaquwaa safara bu yowmal qiyaamee ñaquwaa safara lañ koy nandal mu koy naan yonentoo ko wax sallallahu alayhi shaaribul xamri yashribu araqa ahlin naari kon loolu la wax moo tax kama anna man sharibaha fi dunya wa nasiya rabbahu fa innahu yuaqabu bi iqaabi min jinsi al amal kon mbugal miñ koy mbugal moo tolloog xeetu jëf jëm jëfoon kon fa mel ni noonu rek lay mel moo tax kon nag ah, loolu jar naa bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax Euh, su ko defee kon nag nañ ci bàyyi xel juróomeel ba nag yonentu bi nee na maanaam ñu ne sàngara mooy caabi mbooleem xay miftaahu kulli charrin xay yëpp sàngara mooy mooy caabi mooy kele bi koy hubbi boo xasee hubbeeku ci naan sàngara xeeti mbon yëpp ak caay-caay yeeg mooy yàlla yëpp dañuy daw hut si la yow daal boo capabale ci naan xamatul loo munta capabal ci man koo defati mënta nekkati mukk lu ne mën nga ko man ngaa njaalo man nga fen mën ngaa sàcc mën ngaa rey bakkan mën ngaa tëddee sa yaay mën ngaa tëddee say doom demet juróom benneel bi sàngara dafay jéqi moom ak karta ak nooneel ak ak mbañeel ci pénc mi alxamru wal maysiru yu siiraani adawata wal baxdaa su ko defee kon nag yii boo koy def rek mënu ci mucc danga nga bañ koo waroon a bëgg da nga noonoo koo xam ne sa xarit la sa sappe la sa defu la dara sa yooyu yëpp moo la koy yóbbu moo tax kon boo demee ci tafsirul manaar dafay wax ne sangara sabab la ci tabbi ak nooneel ak ak mbañal ci diggante nit ñi ba ci diggante xarit ak xaritam moo tax mu ne amma kawnul xamri sababan li wuquci al adawati wal bagda bayna annaasi hatta al asdiqa minhum fa maarufun wa shawahiduhu kafiratun kon loolu ñëpp a ci teg seen bët kenn ku ci nekk yaa koy commentéral sa bopp Ali ibnu Abi Talib wax na ce wax ju daw yaram mu ne maa ngi xamee mbon ak sàngara man ma maa jëlee woon ci màng ak badar yonent bi jox ma ko gëlëm gi ma boole ko beneen muy ñaari gëlëm ma yësal leen ci benn buntu ci waa kër waa Lansaar bëggoon caa saf marchandise pour dem jaayi ko war koo jaayi maa ngi ànd ak koo xam ne mi ngi bokk ci banu Qaynuqa mu ma maanaam ma koy dimbandikoo la ma ca mën a jaayee bénéfice ba ci céet gi may waaj mooy doom ji ma yonentu yàlla mu Muhammad may muy Sayyidatuna Fatima ma fekk Hamsatu ibnu Abdul Muttalib ma nga nekk naan ca googale kër gi ma gisaloon sama gëlëm yi ay jéebéer yu jigéen ña ngi ko wër tabaarakallaahu di ko wayal Hamsatu dafa màndi boole kook jël gëlee a jaafeem ja ñëw butti sama ñaari gëlëm yi de bañ dee mbir ma métti ma lool aw ma dara menn pexe ma dem ci yonantu bi wax ko ko yonantu bi mer départ ñëw fekk xamsatu fa mu nekk ba mu ñëwee yonantu bi fekk ko ma ngi ko mandi fekk ko ci xaal boo xam ne kenn mënu ko wax muy wax yonantu bi ne ko hal antum illa abidun li abaay yi yéen duhu leen dara lu dul nekk ay jaami samay baay rek yonantu bi arriéraat delluwaat ñibbi mu ne man ci la xamee mbon sàngara carrément loolu àll yi moo ko wax am na góor goo xam ne moom dafa màndi ba mu màndee tëb di jéem a laal biddiw yi ne biddiw ci asamaan lay jéem a laal ci la xaritam ba ne man de xawma kan waaye tey laay bàyyi sàngara sàngara daal moo mën a deseel nit ponkal mu day nit kii ak ndomba tànk gi ko takk mu màndi naan biddiw ci asamaan lay jéem a jàpp xam nga ni kii nekkatul nit man foofa laa jaaree moom bàyyi sangara carrément xam nga ni mu xattaab dafa daan wax ne ah sàngara de man bu ko yàlla xaraamatoon sax du ma du ma ko naan ma bakko ñu ne ko lu tax mu ne man du man naan luy naan sama xel mi man kay fekkoon na xel dafa am fuñ koy jaayee ma dem jënd ca lu yokk sama xel waaye loo xam ne su ma ko jëndee dafay wàññi sama xel man Omar du ma ko def mukk juróom ñetteeli mbugal ma naan katab sàngara yonentu dafa wax ne naan katab sàngara bu leen ko nuyu bu ko fekkee mu màndi bu leen ko nuyu naan katab sàngara bu feebaree dañuy tere ko dem seeti ko dañ ko bàyyi noonu rek mu dee kooku euh, baadul ulama dañuy wax ne e, maanaam e, innama nuhiya an ibadatihim an iyadatihim wassalaamu alayhim li anna shaariba alxamri fasiqun mal'unun qad la'anahu llahu wa rasuluhu kama taqaddama la'ana llahu alxamra wa sharibaha wa wa sharibaha comme nag maanaam naan katab sàngara kàccoor la ku kàccoor nag kenn waru koo seeti kàccoor kenn waru koo nuyu koo xam ne yàlla dafa ko rëbb loo koy doyee kon sàngara ngoog ci juróom-ñetti mbugal yi nga xam ne duggal dugal dugal na ko ca su ko defee nag lépp lépp luy Euh, màndal xel rek nga yëg nga ñàkk yëg dugg na ci sàngara ak tur yu bari yañ ko tuddee ci jamono yëpp euh, yooyu yëpp nañ ko ci bàyyi xel waaye gis nga sàngara tamit moom la yàlla lëkkale ak karta innamal xamru wal maysiru lépp lu sàngara man ci mbon rek rakam jii di karta man na ko kon nag karta mën na laa créer tudd yàlla karta mën na laa taxa faat julli karta mën naa dugal nooneel sa digganteeg sa xarit carte mën naa dugal nooneel sa digganteeg sa mbokk ndax koo gañe këram ñi xëy génnee ko ngir ci carte ji le ala kulli xaal mu bañ la carte mën naa laa torox li nga xam lépp mën ngaa xëy tey teg ko ñàkk sa kër gi ñi xëy génnee la nga ñàkk sa oto bi sa liggéeyukaay ba yëpp nga jox ko ñàkk ko kon nag carte tamit mooy rakki sàngara lu sàngara xenu ci mbon rek boo ko seetee moom carte mi tamit xenu na ko su ko defee kon nag boroom xam-xam yi sax nañ ne kuy naan sàngara ñëpp a ca dëppoo boo naanee mandi nga mandiwu loolu toll ni bën bën a pusa war nañ laa caw juróom-ñetti fukki yaat ndax da ngaa yàq pénc mi abu hanifa ak imaamu malik ak sawri yu ñoom ñëpp dëppoo nañ ne juróom-ñetti fukki yaat war a caw imaamu shafii yu moom kenn moo ne ñeent fukki yaat war a caw imaam ahmad riwaaya bi ba gën a dëgër ci moom dafa na juróom ñetti fukki yar lañ la war a caw su ko defee kot nag loolu mooy mbugalam naan katab sàngara léegi nag walladina qaalu ñi nga xam ne dañoo wax ne samaanuuna jalda lañ ko war a caw ñi ngi ko jëlee ci jëfi Omar ibnul Xataab juróom ñetti fukki yar la cawoon ñamandi woon Anas ibnu Malik mu ne dikkal nañ yonent bi ci gennu góor fa mandi ñu dóor ko ay dàll ba mat ñeen fukki dàll lañ ko dóor su ko defee ñi wax loolu tamit ñooñ foofu lañ dëggee ñeen fukki gi ñi indil aboubacar moom tamit mu def la yonent bi defoon dóor waaja ñeen fukki dàll ñi indi omar omar diisoog nit ñi ci wàllu géttéen ga ibnu awfi ne ko daal na gën a néew la gën a néew daal mooy juróom ñetti fukki yar mu tolloog maanaam lima ma xaste dóor ko juróom ñetti fukki yar kon omar mooy ki njëkk a dóor juróom-ñetti fukki yar ku naan sàngara moo tax atte boobu la imaamu malik jël ndax mazhabam bi omariya la mu des nag ki naan ñi caw ko mu naanaat ñi caw ko mu naanaat nuñ koy def ñu ne yonantu bi dafa digle woon ci naanoon ñi caw ko ne nañ ko rey kaana nabiyu qad amara bi qatlihi isa takarara minhu surbal xamri su ko defee kon salaasa maraat wa amara bi qatlihi fi rabiati waaja naan na ñu caw ko mu naanaat ñu caw ko mu naanaat ñu caw ko ba mu ñetti yoon mu naanaat ñeenteeli yoon yonent bi ne nañ ko xay muawiya ibnu abi sufyan moo ne ida moo wax ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ida sharibu alxamra fajliduhum summa in sharibu fajliduhum summa in sharibu fajliduhum summa in sharibu faqtuluhum Muawiya mu ne ma dégg yonantu bi ne bu ngeen gisee ñu naan sàngara góor lañ jigéen lañ dóor leen leen juróom-ñetti fukki yar ñeen ñeen fukk bu naanaatee dóor leen ko bu naanaatee dóor leen ko bu naanaatee ñeenteeli yoon na ngeen ko rey xam na riwaaye bu ne bu naanaatee ñeenteeli yoon fadribu ko mooy dagg leen doq ga rek moo mu kon loolu imaamu Nasaayi moom la solo ak Tirmisi waaye ñu ne hadis boobu dañ koo folle ci hadisab in shariba al xamra fajliduuhu fa in aada rabiati faqtuluuhu fa fadribu unuqahu joj mooy dóor dox ga lii moo ko folli mooy su dóor su naane dóor leen bu ca delluwaatee ca ñeenteel yoon ba ray leen ko ñii ne déeréet gi moo folli ray gi ndax yonentu bi andil nañ ko ku naan sàngara ñeenti yoon ñu jëteen ko ko yonentu bi ñu ne da koo waaye rayut ko kon loolu lépp lu ca mën a doon daal lu bon a bon la lu jar a daw rek la mooy wax ji daal kon wax jàngoog ah, lu ca mën a am nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci géteen yooyu nga xam ne mooy dal ci kaw ku naan waaye bala laa géteen ngaa dal ala kulli xaal na fekkoon ngay ko mësuur booy xale bu mësuur dañ lay yar rek waaye kenn du la dóor juróom-ñetti fukki yar na fekk ngay ko xam xel boo doon ab dof dem tamit naan sàngara kenn du la géteel waaye tamit na ko ñaari way maandu seede naan nga wala yow mi naan yaa ko saxalal sa bopp wala mandarga muy tekki ne yow mii da ngaa mandi da nga ci yaa ngi kayang kayang yi ñu sa ah, gémmañ mu xasaw xutug sàngara kooku moom alaama bi moo la xatte kon sàngara ngóog ak mbon nga nañ ko daw waaye lépp lu ma la wax ci sàngara rek daanaka mën naa la ko wax tamit ci karta dañ koo miinoon ci péncam araab yi dañ daan teg seeni jëlem ñi di teg seeni kër yi tey nag ñun fii la karta gën a bëree tabaarakallaahu ci euh, euh, tabaarakallaahu ci façon yu bëri yi euh, ak tur yi tur yu bëri la nag suñu réew mi li fi nekk ci ay tur ak turi turi karta ku ko bëggoon a lim sax si ngay fanaan Euh, lu bëree bëri la euh, am na lu ñu daan tuddee le touré national comme mi nga xam ba tey am na lu ñu daan tuddee teg teg gi teb bi tabaarakallaahu am na am na tabaarakallaahu fas yooyu daan daw xaw ma nu mu tuddati euh, yooyu tamit amoon na nga taxaw naan set bee ma daane non man trois bee ma daane tuuti tey ma jàpp ko ma ne ko yow ba nga daanoo yàgg na ba nga demee jëndi karta ga rek nga daanu woon benn waaye mos naa ñëw ci asbaay yal na ko yàlla yokku leer ne ko dama lay laaj ndax loterie nationale dagan naam déet mu ne ko national ja moom guddal rek ba nga ne loterie rek la xaraam jërul xegg ci national bi loolu guddal wax rek la si nga mag ñi mën a jàngale ak seen kon ba nga ne loterie rek la xaraam jërul xegg ci national bi kon carte ga ko mën a tuddee ak nuñ ko mën a rafetalee rek tabaarakallaahu xaraam na na ko ñëpp daw ak nuñ ko mën a tuddee rek bëri na lool xoos beek teet bi beek yu kenn xamut tur yaa bëree ki suñu réew mii ba kenn mëntu ko wax waaye tur yaag rafetal gaag yaa xam lépp daal teeg am na ma teg nga teg kenn gañe ña ca des perte rek loola dugg na ci carte waaye nag carte bokkut ak ki nga xamee dafa yore entreprise bi at mu jot mu génnee juróomi bee makka may ko waa entreprise bi ñoom ci seen bopp ñi loture ko ku sa tur génn nga dem aji dara nekkut ci ndax foofa kenn tegut yow rek yaa maye lu dajut ñëpp te mënoo wax ne diw laa ko jox ñu lay mere nga ne yéen de cent personnes ngeen may naa leen juróomi billet léegi nag ku sa tur génn rek yaay dem amul joxe dara kon loolu dara niwu ci loolu tamit valable na ci ñi yore seen station yi léeg-léeg ñi def seeni bon essence yi am na boo xam ne boo ko euh, tebbee mu am lu mu tombeek nga gañe oto wala nga gañe moto walla nga gañe nangam ci xaalis loola dara nekkul ci waaye léeg léegi nag am yu ci nekk yoo xam ne kartay nandite la moom mooy ne loola am na ku ku ñëw jënd li nga teg loola muy oto bi wala jakarta bi walla xaalis bi kenn ku ñëw yore eh, ticket di jënd am na lu ñu lay dagg dagg-dagg yooye nga dagale nag jàllar bi ku bu ku ku ko gañe nga jox ko ko ko carte ak nanditi la daganut dafa xaraam feeg xam na looy dagg nit ñi door a mën a def loolu rek xaraam na loolu bokk na ci carte ak nandite yi suñ réew mii bu tabaski boo bëggee jot rajo yu bëri ak télévision yi ak entreprise yi da ngay dégg ñu ne ah na ngeen woote te la ñuy woote kat serveur la nga xam ne booy dugg rek yow sa six cent franc mbaa huit cent franc dem na su ko defee ñi am laaj yu ñuy laaj yu ñuy guddal ndax ñi mën a lekkaale sa xaalis boo tontoo ci nangam ku ko tontu yaay gañe nangam nga dajale lu mat ñaar téeméeri nit su ko defee la seen cerveau ya mën naa nekk fukki million yow nag nga joxe euh, neexal goo xam ne euh, ñaari million la ñu ne ña ngay may xar déedéet fekkee daal bu buñ lay may da ngay dem rek jëli dara nekkut ca waaye may goo xam ne foog nga téléphoné sa crédit bi am lu mu dem ña am luñ la dagg carte ak nandité rek la dañ koo miin nañ koo bàyyi te ñu ko fi def ñëpp ay jullit lañu nañ leen xee xamal leen ne ñu baax ngeen li ngeen di def lu baax la yéen a ngi créé ay emploi ni nga di ca jëriñu kon bu leen kenn dugal ci carte ak nandité gi nga xam ne dafa xaraam ku yore xar yooyu maye ñi ngay may jërul xoote jërul wane ñi ko soxla woo boo doon dem di leen seeti jërul sol sa dàll sa mbokki bopp yi rek la ca soxla woo xaram tabaski rek mënoo leen a jeexal sa xamee li bopp yi ñi ngay ñi nga xam ne say employé lañ ca nekk foofa ñi ko aajo xoo rek mënoo leen a jeexal bu la yàlla taxee di def defal loo xam ne sa ndeyjoor bi sax bu ko joxee sa caam càmmooy bi bu mu ko yëg waaye rancale xar ya ni leen su ko defee woote leen ci nangam enveloppe yaa ngi nii yow soo wootee dana am luñ la dagg dagg ma ko dagg ko nangam mu nekk millions yi bëri ñu am luñ ca comp am kuñ ko jox mbaa am ñuñ ko jox carte ak nandité la ku ko ci def sa ki ma dafa xaraam nañ ci bàyyi xel luñ miin miin la mu tasaaroo lool waaye ña koy def comme gëm nañ yàlla ne bëgg nañ yàlla nañ leen ci xeet ñi jëm koo bàyyi ndax kat ad diinu an nasiha la yonent bi wax diina lislaam lépp mooy laayi biir kon nag fépp fuñ koy defee ña fa nekk di liggéey ay boromi xam-xam a nga fa nañ leen dem wéetoog chef d'entreprise ya ne ko dëgg la nag yaa ñuy fay yow la liggéey waaye lii ngay def daganut yàlla bëggut ko yonantu bi bëggut ko jàngale ko kar rek naan nit la na ko bàyyi soo amee ñooy may xar mën nga leen ko may ta kenn du ko yëg kon loolu la yàlla bëgg nañ ci bàyyi xel kon carte ak nandite gi dafa bëri ci réew mi dana am ci station yi dana am ci rajo yi dana am ci télévision yi dana am ci entreprise yi dana am dana am dana am kenn mënu la ko wax karta daal fekk am na looy def door a jot ci liñ la defal xam ñu def li nga def te amuñ li nga am nuñ ko mën a tuddee ak nuñ ko mën a jekk-jekkalee rek karta la te karta lu bon la dafay màbbu koom-koom dafay safaane dafay salfaane maanaam réalité yi dafay salfaane tamit xàq yi moo tax tey am na fi ñoo xam ne jamonoy karta yooyu fase doon daw ñu amoon ay gise man dama fàtte tur wa sax bu ko defee am na ñu ci daan gagné fanweeri million ñii soixante million mais ku ko ci def ñii gagné kër ñi koy caméra balaa am ñaari at boo ko gisee yërëm ko moo tax lislaam mooy diina ju mat ñëpp ci économique li ci yàlla jàngale tey nit ñi sonn nañ ci tabax économie ba sonn dara mënu cee dem waaye économique lépp yàlla nga ko jàngale ci ñetti aaya muy économique boo xam ne yow ci sa bopp moo ne man kenn maay liggéey wala économie boo xam ne da nga koo bëgg a tabax ci sa famille wala nga bëgg koo tabax ci société bi wala nga nekk maanaam euh, état bëgg koo taxawal ku mu ci ñeent ñi ñëpp yàlla ñaa ñetti aaya la leen bool ne su ngeen ko defee dem fu ngeen bëgg seen économie ba yegg bu dana fa yegg bu déwénee dana gën a kawe bi ci njëkk mooy lekk leen naan leen waaye bu leen yàq kon daal première lii bijj économique ci réew di ko bijj ci famille di ko bijj ci nit ki liggéey moom kenn di ko bijji tamit ci famille bi ci ci pénc mi mooy lépp loo am soxla l'islam daganal ko nga man koo jariñoo ci lekk ci ñaan ci dëkkuwaay ci soluwaay ci sa portable waaye bul yàq boo duggee ci bunt buntab yàq rek xalaa ku dugg nga ci liggéey buntu buy màbbu économique nit ki mën naa teraanga nit mën naa liggéey lu koy teral waaye nit ki mënta yàq lu koy teral yàq kenn mënu koo liggéeyal yàq la kenn mënta liggéeyal boo fi mënee liggéey ba mel ni mbaam mën a yàq ba mel ni golo billahi torox ba mel ni xaj rek ngay mujj def mooy bawkat boobu di ab mën a liggéey ba mel ni mbaam mën a yàq ba mel ni golo torox ba mel ni xaj maa la ko wax moo tax yàlla tënk ko ci wa kulloo washrabu mais wala tusrifu lekk leen naan leen waaye bu leen yàq bi mu ne lekk nag ne naan dëkk waaye dëkk dikk dikk na bul tabax lu gën dul dëkkee waaye waruwaay dikk na bul gaare oto yoo dul dawal benn oto doy na ci li nga bëgg a doxi oto yu dul bëri yooyu gaare maam moom parking bu ne nga dem feesal ko lu muy jariñati waaye dugalaale na ci ñàkk yàq gi yére yu dul jeex juróom benn bataan léegi dégg naa moo xew lépp nga sas ko yére ba mu fees foo koy sole yàq dikk na jasneer bu génn nga bëgg am couleur ba bii de awma ci woon couleur ba kon wutal na woon nangam takkaay yu dul jeex ngay tiitaru fu ma lu ku ko man ko mën a amal beneen bi mooy yàq gi mi ngi ci portable yi wax dëgg yàlla koom yow boo fi yoree ñetti téléphone bu la numéro yëpp xooxee benn nga mën a wuyu looy defee ñetti téléphone wutal benn ab téléphone rek dugal ci sam numéro te mu nekk téléphone bi am ay waaye tey buñ demee bañ ne am na téléphone bu génn jamono ji sa dégg naa am na bu génn ma laaj ñu ne ma un million deux cent un million trois cent lay jar loola wax dëgg yàlla mën na fondation yow nga nekk xale bu góor di tiitaru amagoo dara sa papa mi ngi nii passion bi la yaakaar ngay tiitaru di wan maanaam soxna yi nga xam ne da leen a bëgg bëgg leen tuur lëndëm man ku riis laa gis nga sama téléphone bi mooy iPhone bi bu jë génn maa ngi ko jëndee un million trois cent te boo demee sa yaay mën naa xam bu xàññee du reer yaa ñàkk jom te bon lum lay jëriñ kooku yàq dugg na moo tax koo fi gis muy lagar-lagareeg ñeenti téléphone ak ñetti téléphone ak téléphone bu ne maa ko mujj xam boo yeboo ragal ko kooku ma àdduna la te nitu àdduna kenn mënu ko tere torox waaye mbir mu ne la nga soxla rek nga consommé ko yem ca kooku mooy tabax économique moom la alquran ne wa kulloo washrabu wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifina muy benn ñaareel ba mu ne dafa bëgg nit ku nekk ci digg bi bul nay bul yi nay ba ëpp ku ko def sa mbokk yëpp jéppi la tàlli ba ëpp ku ko def boo ëllëgee da ngay yedd sa bopp moo tax yàlla ne walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu waaye li ma bëgg wakaana kaana bayna zalika xawaama suratul furqaan aaya 67 boo demee fekk ko ca ñetteel ba tamit mu ne wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fa taquda maluman mahsura lafun wa nasrun murattabun la ba mu ne wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika ah wala tabsutha kullal basti mu ne fa taquda maluman maluman mooy dellu ci tabarakallahu Ah, wala tajal yadaka maxluta ilaa unuqika ku jël say loxo gax ko ki say doq banku baraw jaalaan banku baraw basan basan sax bu bankoo balañ ko jëriñoo dañuy wax tàllal leen basan gi ñu mën a toog waaye yow yaa raw basan guñ lem wala sajaada sajaada bu lemu ku cay julli foo ko mën a déggee waaye balaa mën a jariñ rek tàlli yow nag nga banku baraw jaalaan tabaarakallaahu su boobaa ñëpp lay yedd dana bëri lu xew ci famille bi kenn du la ko yëgal ngay guuxi lex naan man mii ñi fi mag laa bokkul tax yëgalu bu leen ko yëg def lay jariñ yow comme boo yëgee doo def dara looy yëg foo luñ lay yëgalati yëg def rek lay jariñ su ko defee ñëpp yedd la waaye wala tabsuthaa kullal basti boo tàllee gën tàllee gën yaa moom maxsuuran yow moom da nga mujj yaa yedd sa bopp da nga mujj tamit yaa koy réccu ndax ak ak réccu gi da nga ci yóbbuwaale sa njaboot ndax li nga waroon a te jariñ sa njaboot gi tabaarakallaahu yëpp da nga mujj xeñ leen ko taloo leen ko xeñee mooy nekk sàmba alaar ci mbedd mi baataree di yàq xalal ji fekk sa doom yi lañ seen jàng taxawoo ca seen liggéey taxawuloo ca seen dëkkuwaay taxawuloo ca seen wàllu santé taxawuloo ca kon da ngay yedd sa bopp sa njaboot yedd la nga nekk ku torox kon tàllikat foo ko fekk ñaareel gu ëpp gu jéggi dayo sàmba alaar lay doon waaye naykat foo ko fekk tamit moom ñëpp a koy bañ dana bari lu xew lu du dul mu mere nit ñi fekk moom moo war a moo moo war a mare boppam kon gis nga ñetti aaya yi ci la yàlla tabax économie képp ku ne ndaw laa maa ngi koy jël def ko muy maa ngi wuti waaye kenn mënu maa tax a jënd lu ma xamut soxla du ci lekk du ci naan du ci colaay du ci maanaam portable du ci dàll du ci nangama nangam nga jël lépp euh, tabaarakallaahu tekk ko ci sa soxla ci ci liñ ko soxla nga yem ca kenn mënu laa tere réussir bu ñaareel ba su fekkee ne yow nekkoo kuy yàq ñaareel ba nekkoo ku nay ba jéggi dayo farata rek ngay def ku dul def lu dul farata bu farata defee doo ko mën a defati kooku moy lam yusrifu wa lam yaqturu waaye ku dul def lu dul farata bu farata jotee rek nga yàccaaral xulli say bët waaye nekkal wa kaana bayna dalika qawaama kooku tamit boo ko nekkee ndaw kenn mun laa tere réussir waaye boo nekkee koo xam ne tàlliwoo ba mel ni autoroute bi waaye banquwoo ba mel ni basan bu ñu digg bi rek ne fa nga jëm da moo tax tey ndongo daara yi miin coono nekk ci daara ji ba seen xol toj soo leen daggalee billet yóbbu Europe wala nga yóbbuleen leen Amérique nga daggalaale billet taalibe Senghor yi mooy jàngkat tubaab yi boo leen fa yóbboo ñoom ñaar ñaareel jàngkatu daara bi mooy gën a réussir ndax bu demee dana nangu mu coono bokkaate néeg ne ci laa màgg daanaa bokk daara ji ay nangami nit dana nangoo bokkaate lekk du dem jël appartement wu boppam dana nangoo xooslu su ko fa defee ñeenti at juróomi at rek mu tabax kër jënd oto yóbbu bàyyam màgg waaye boo fa yóbboo jàngkat yi jàngkat tubaab yi lañ fay nekk dàll wu bees wu nañu dañ ko bëgg a jënd portable bu génn ñoo ne dañ ko bëgg a jënd fu yére gën a sole gën a rafet ñu ne dañ koy bëgg a jënd maa ba bokkaate appartement laay jël bu demee foofa gis jongama ma joo xam ne luqi na bët mu ne dafa koy takk fàtte nañam bàyyi woon gannaaw kooka moom yow fa ngay mujj mooy di ko wutal ñaan rek moo tax xooslu kat muñ kat takk biiram ngir mën a tekki biir yu waajuram yi ak mbokkam yi ku mel noonu mooy réussir waaye koo xamee ne nii bu demee moom biiram bi lay tekki yéen ñii waaye mooy mu bàyyi gannaaw seen biir yi lay takk bari na fi koo fi ñaan loxoon wala yaajaat tekki nag natt jox ko ko mu dem ba mu demee tekki na biiram bi yàlla du ko takk biiru baayam ak biiru yaayam amul leen benn njariñ tous amul leen ko ci njariñ kon nag ñetti aay yi ci la yàlla tënk économie yéen état yi jàng leen ko di ko pratiquer yéen famille yi na ngeen ko jàng di ko pratiquer yéen ñi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa nga yore entreprise wala nga yore sab cantine wala nga yore maanaam di ambila wala nga yore sab boutique wala nga yore loo mën a yore xataa boo yoree daara alquran sax di jàngale ñu lay fay nga di ko sakkanal comme nii ma waxee la ko su boobaa rek bu la yàlla dimbalee balaa yàgg rek nga nga nga nga man dara fi bëri na ay étages yoo fi romb te seeni borom ba ñuy ñëw ci mbedd mi lañ daan fanaan ci bunt biti gi bunt buntu place yi jàmbur yi ba boroom ñëw wéq leen ñu yeewu sëlmu daaj seeni kers yi dem bi liggéey tey ñooña tey yàlla ji ubbi na seen wërsëg tey lu nekk ñu am ko ci kon nañ jàngee ci ñoom te ñooñu ci koo topp rek li ma la wax rek ñu ci hëpp ay doomu daara lañ doomu daara xolama toj ca daara ja moo tax moom bu génnee coono bu mën a am day jàpp ne maa ngi ca daara ja ba léegi sonn bi ma sonn ci daara ja mënu sonnaat lu ko gën a métti moo tax loo ko defal ci bànneex rek sax dafay mujj loolu da koy mujj sa xatal ku mel noona dana bàyyi xel ay waajuram bàyyi xel ay mbokkam bàyyi xel ci lu bëree bëree bari loo xam ne bu ko defee rek dana mën a réussir kon kenn du yàlla ci mën a jàngale waaye gis nga ko tamit yàlla noonu mu tënkee ñetti aaya yooyu ci économique ni la tënkee wàllu santé li ñu soxla ci santé yëpp yëpp yëpp lépp lépp nga xam ne ku ko pratiquer doo sonn tamit yàlla tënk na ko ci benn aaya yonentu bi tënk ko ci benn hadis aaya bi yàlla tënkoon muy première ba ci économique moo tëb moo moo tëbb tamit moo tënk santé moo tax benn waaye dafa ñëw benn nasaraan euh, wax benn jullit ne ko waaw yoon seen téere bu rëy bii ndax wax na dara ci wàllu santé mu ne ko waaw moom de benn aaya la jël tënk ca santé tënk ci économie mu ne ko ban aaya la mu ne mooy wëkkuloo wasrabu kuy def wala tusrifu ndax inna laa laahibu wala innahu laa yuhibul musrifina suratul araf seeti ko ci 31 da nga ko ci fekk mu ne innahu laa yuhibul musrifina su ko defee kon nag euh, mu ne kam bi feebar yëpp mi ngi soqee ko ci lekk gu hëpp ak naan gu hëpp lekk loo war lekk naan loo war sa naan wala lekk loo war lekk naan loo war a naan waaye da nga lekkee noo ko war ta lekkee lekk ga hëpp ba mënoo noyyi kenn munu laa tere feebar mu ne ko ñun aaya ji li muy gàtt gàtt ci lañu yàlla jàngal économie ci la yàlla jàngal tamit wàllu santé moo tax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallama buur ba leen nekkoon mu xaw xis Égypte ba mu ko mayee ba mayaale ko médecin dafa ne ko médecin ba na dem bi ñun nit lañ ñoo xam ne feebar du ñu gaaw a daane feebar yabut ñu ndax lu ñu ko yóbboo ba feebar yabut ñu bala ñoo lekk fekk nañu xiif lu xiif ba métti métti bala ñoo regg fekk jug nañ kuy def bala ngaa lekk danga ngaa xiif te bala ngaa regg fekk nga jug feebar du la gaaw mu ne ko nag yeneen may yi ma may yëpp danaa ko jël mais médecin bi moom na ñibbi moom mu waxal boppam tamit ba waa ji jàngalee nasaraan bi aaya mu ne ko nag seen yonent bi boppam moom lu wax ci wàllu euh, feebar ndax wax na ci dara mu ne ko waaw waaw wax na ne kay ma malaa aadamiyun wiaan charran min batnin bi hasbi bi hasbi ibni aadama ukalaatun yuqib na sulbahu am na riwaaya bu ne luqaymaatun yuqibna sulbahu fa in kaana la mahalata fa sulusun li taamihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasihi imaamu nasaayi tirmisi yu moo génne hadis bi moo ko solo mu ne yonent bi nee na doy na maanaam ka bool boo xam ne bu feesee rek di xay benn bool la ci yàlla dénk doomu adama mooy biir sa ndaal yi fees di jàmm sa paan bi fees di jàmm sa bool bi fees di jàmm super bi fees di jàmm waaye super ab biir bu feesee rek di hay loo ci man ci mu ñàkk fees def ko waaye ñun nag jamono ji luñ ci man mu fees la ñuy def xelaatuñ luñ def luñ ci man mu ñàkk fees moom xelaatutuñ ko su ko defee nag nga dajale lekk yu dul jeex ne indi ataaya ji fooy wéree su ko defee léegi nag mu ne doomu aadama bu biiram feesee rek di hay mu ne doy na daal ay tibi ñam yu ko mën a dëgëral ndiggam ba mën a taxaw jaamu yàlla mën a taxaw liggéey bu ko mënoon daal biiram bi lay xaaj ñetti xaaj benn xaaj ba mu def ca ñam bu ñaareel ba mu def ca ndox bu ñetteel ba mu noyyi ko ñun nag dañuy jël ñett yëpp def ca ceeb ne ndox moom lu xoyof la mën naa mën naa ko cee xaj-xajal ndox yi moom ma jëm koo négocier di birangu rek fooy jaar ba doo feebar feebar yi ngay gis yëpp ñoo ko xëccal suñ bopp te mi ngi soqeekoo ci li ñuy lekk ak niñ koy lekkee waaye ku bàyyi xel ci li ngay lekk bàyyi xel ci li ngay lekkee feebar yu bëri man nga ci mucc te loolu la yonent bi jàngal kon yonent bi mooy médecin wu médecin yi lii médicament bi la jox xeetam bi buñ ko nangoo woon jël rek ñoom ñëpp wér waaye tey xeetam bi ñoo gën a wéradi ndax lu ko waral suñ kilifa ga di yonent bi nangu nañ mu xilif ñu ci lu bëri mais nanguwuñ mu xilif ñu ci bool bi bu bool bi xasee taxaw ñu ne ko suñ kilifaak bopp lañ bàyyi ñu rek ak suñ bopp ñu dem a dem a dem a dem ba mënatuñoo demati lekk goo xam ne ba balañ la ko tegal mëbale ko koñ bu nañu mëbale ko teg ko ci sa kanam nga noyee xaat nag door a door door a sóoru bool ba fooy wéree man ta ne mm, fooy wéree moo tax jamono ji ko wax mu ne man de vraiment li may métti sax xaw ma ko moom daal su ma yeboon sama yaram wi yëpp ma ne ku lekk loo xamul feebar loo xamul loolu moo ñu dal topp ma suba ci waxtu wi ci kartanal yàlla ma fanweereeleelu yaa waxa ak juróom-ñeent mooy nekk suñu bopp darsu ëllëg bi maa ngi ñaan yàlla ci mbaaxam ñaan yàlla ci kartanam yàlla nañu ci yàlla yóbbu su ko defee ma sopp koog yow taasiya bi nag mooy yaa ayuha na amanu jooju nga xam ne moom laa lay wax danaa la ko wax suba mooy nekk suñu bopp darsu la yabluwannakum allahu bi cheyin min assaydi tanaaluhu aydikum wa rimaahukum li yaalama allahu man yaxaafuhu bil xaybi suba mooy nekk suñ bopp dars ci waxtu wi yal na yàlla yóbbu ñu fi in uridu ila islam mastataatu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kar